Le président de la République moom centre ministère chargé de l'environnement suñu Natango Alioune pour mu def pour cette jafé jafé, Union ñu am fële ci Lac Rose nan lañ koy saafara mu ministère de l'environnement wax ma ñun ñaar ak sama Diop mi inondation ñu ñëw euh, Bok ci bi Euh, li nga xam ne nag moom mooy solo bi mooy eh, jafe-jafe yooyu nuñ koy saafara li ko indi mooy ndox mu bari bi nga xam ne ren ji wàcc na fii ci Ndakaaru ci région de Dakar su fekkee ne dañ koy xayma suñu nattee taw yu mag yi nga xam ne fanweeri at yi paase am na fi li fi wàcc eh, ren ji ful na ñaari yoon taw yooyu nga xam ne am na fi ci fanweeri at yi paase mu indi ay jafe-jafe ah, mu ne nañ ci waxtaan pour seet lagros Rose nan la ñuy bañ a def mu bañ a yàqu ci mbirum ni muy ay nit niñ ci sutur la woo di ci am xorom di ko jaay ak activité touristique yi nekk autour gouverneur def na ci ay daje léegi li nga xam ne ñun moom la ñu wax techniciens yi mooy nañu def lépp ba nga xam ne Lac du yàqu ni mu meloon dana continuer di ko mel loolu li koy indi mooy ndox mi fay walangaan di fa dem ñu seet nan lañ koy wàññee waaye tamit dañ ko war a méngale ak population yi nga xam ne ñoo nekk ci zone man Bambilor nga xam ne ndoxu taw bi moo fay dem ñoom tamit du ñu nekk ci mbënd donc dañoo war a ñaari exigence yi léegi looloo tax ñu ne techniciens yi ñoom nañu toog ci ñun tegtal yooyu ñu leen jox lan lañ ci war a def pour tegtal yooyu méngoo ak ñaari yooyu ñaari soxla yooyu nga xam ne war nañ koo saafara donc ñu daje jox ñu seeni xalaat parce que li nga xam ne aussi mooy dëgg mooy que ne ndox mi wala ngaan di dem lagros bala nit ñi di fa dëkk sax loolu moo doon def parce que lakk suñ koy wax ndox dafay walangaan di fa dem sinon kenn du wax lakk waaye war nañoo seet nuñ koy safara donc loolu daal moom mooy solo bi